seen euh, réaliser nañ ay projet à Bambilor réaliser nañ ay projet tamit à Touba mm-hmm. euh, fi may wax ak yow ñu ngi ci programme bo xamné euh bu démarrer bu 192 villas mm-hmm. yo xam ne ñu ko démarrer ci euh, Lagrose euh ak ben ferme intégrée bo xamné bu buñ def standing bo xam ne ñu ko def ci Lagrose bi mm-hmm. euh bobu nonu démarrer nañ travaux yi démarré nañ ci beneen projet boo xam ne sax bu mucc ayib. boo xam ne parce que ñun fépp fu ñuy def rek projet. dañuy jiital assainissement. ndax assainissement euh, te jii nii tey boo xoolee tey Touba mbënd mi euh, ak napp bi ni mu wàccee. nga gis ne ndox mi bëri na. Mhm. Euh, zone yu bees yi mujjee dagg yépp bu fekkoon nañ defoon nañ fa assainissement. Mhm. waajal ko. Mhm. doog fay tabax. Mhm. kon lu bëri ci mbënn mi li am ni du am. moo tax proxime ville am na projet bu mag boo xam ne ñu koy def nii Bambilor euh, na xam ne déjà dañu njëkkee assainissement bi. ba pare fi ñu toll nii ñu ngi ci presque ak quatre-vingt-quinze pour cent assainissement. war a démarrer rek construction bi. Euh, boo demee ci tamit lu jëm ci wàllu programme FAES bi. Euh, defe naa ne li ñu orienté. accompagné ci ay immigré euh, ëpp na daanaka 2000 immigré yoo xam ne ñoom ñëpp suñu cabinet la jaar ñu wan leen euh, yoon wi ñii ñu defar leen projet dugalal leen ko ci institution yi nga xam ne ñooy def financement pour immigré yi mhm. euh, ñii tamit ñuy laaj ay conseil mhm. ci lan lañu ñu war a mën a investir ci lan la ñu war a mën a dex ñu di leen jàppale di leen gunge di leen teete mhm. ba nga xam ne ñu mën a taxaw تي خدمة الخادم بدو كري لي فيرم انتغري تي ابار نون فير نيار كي فيرم اك جوروم نيات يين بغا ديف تي لوور توبا دانيو كو تك بو كو تيميت مورد بو نيو ام سوف بغا باي نون ني جابالي لا ديفال لا بن في خدمة الخادم ميم ديفال لا بروجي بي ميم تيميت اورينتي لا امي فينانسمون boo amee financement tamit ñu mën la accompagner. xam naa yooyu incha allah dinañ ci gën a xóotal bu ñu ñëwee ci ci mbir mi nga xam ne tey mooy suñu tomb mbokk rek ñu xam ni yéen ngi ànd ak seen télévision Touba Vision euh, fii tey ci euh, Proximville muy euh, benn entreprise boo xam ne tey dañuy dañuy jàppale doomu aadama yi gunge leen ci nak la ñuy mën a fexe ba ñoŋal seen dund ci côté yëpp waaye nag tey ñu am ñaari tomb yoo xam ne moom la ñu bëgg a waxtaane lu jëm ci wàllu emploi ak aussi lu jëm ci wàllu maanaam dëkkuwaay mm-hmm. mu am ay naal yu am solo yi nga xam ne moom ngeen ci naal Euh, maanaam dëkkuwaay wala emploi lan lañ ci jublu. waaw kay dëkkuwaay ak emploi euh, xam nga tey jii nii euh, dañuy dellu toujours rek ci référence ci sëriñ bi. Mhm. ndax boo xoolee nit mënta moom boppam te liggéeyul. Mhm. moo tax alxitma nekk lu am solo am solo. Mhm. ci ci ci yoonu murit ci doomu aadama bi. nga xam ne nit ki li mu war a njëkk a def mooy jaamu yàlla ak liggéey. Mhm. liggéey mooy emploi. Mhm. Euh, tey jii nii boo xoolee Touba tey euh, amul usine. Mhm. Touba daanaka amul benn usine boo xam ne euh, lu ay usine xorom. ak usine glace. lépp lu fay dugg rek dañ koy jéggaani. te kenn xamul ñaata la ñuy dugal injecté ci Touba waxuma parce que économistes yu bëri. dañuy xayma rek ci màggal gi. Mhm. mais duñ xay xayma quotidiennement li na xam ne moom la population bi. dund ak yeneen màggal yu ndaw ndawaan yi nga xam ne ñooy am ci am bis bis. Euh, mhm. cinq jours yëpp bis bu ne daanaka. dina am xew-xew na mhm. euh, euh, ak loo xam ne foo xam ne lu ma 2 millions ci li ñu xayma neen ëpp na ko. ña ngi fay yeewoo. kon dëkk boobu potentialité bi mu am. ndax bi ma demee Brésil. ci ci cadre programme FAES bi ci wàllu. xidmatul xadim yi ak nag yi seen Holstein yooyu nga xam ne ñoom day mën a am meew bu bëree bëri am ndawal. Mm-hmm. ndax Brésil bokk na ci dëkk yi gën a yomb ndawal. Mm-hmm. Euh, ma dem daje ak euh, secteur d'état agriculture bi. Mm-hmm. mu ne ma euh, ñun ma dem ci dëkk bu ñuy wax Porto Alegre. maa ngi nuyu ñoom sëñ Mor sëñ waa daayira ba ndeysaan bi ñu dalal ñu dalal yu am solo. incha foofu rek.

Euh, na xam ne léegi mu daal ne bi ñu paree rencontre bi rek daf ma boole ak coopérative yi. Mhm. ndax gis na ferme yooyu noonu dafa am koo xam ne moo yor wàllu dund nag yi. moom mhm. la koy servir am na koo xam ne mooy ñëw récupérer meew mi. Mhm. ñoom loolu rek coopérative boobu loolu rek mooy seen liggéey. am ñoo xam bu ñu jëlee meew bi léegi dañ koy séddale. ñi nga xam ne dañuy def yaourt. ñi nga xam dañuy def fromage. ñi nga xam ne dañuy def lenn lu si nekk ak coopérative ba koy mu ne ma ñun force bi nu am mooy. am nañ force de production. Mhm. mais na am nañ force de de consommation. machallah allah xidmatul euh, xaddim ferme yoy nonou nga gis ne bobu ba ñi ñu ngi ciy dox ci lañ xalaat ne kon fu 2 millions ba 2 ba 3 millions. Mhm. Euh, personnes di yeewoo. Mhm. tey jii bu ñu fa defoon lum dédé dé rek ñu def fa euh manam comme niko niko Brésil yo ko waa Porto Alegre defee. ndax mais mën nañoo am rek ñu ne am nañ 500 fermes. Mhm. ci li wër Touba. Mhm. xam ñun xidmatu xadim euh, ci suñu capacité ñu ngi bëgg a commencé ci ñaar fukki ferme ak juróom-ñett. Mhm. waaye dañ koy yaata ba nga xam ne ku ñëw ñu defaral la ferme xidmatu xadim wan la yoon wi. mais tey jii bu ñu defoon loolu mën a euh, am ndawal. ndax tey jii ni màggal gi ay milliers milliers nag la ñuy jëlee Mali fu ne lañ koy jëlee. Mm-hmm. di ko indi. Mm-hmm. te nag yooyu noonu mën nañ koo defaral suñu bopp. Mm-hmm. mën nañ koo yaral suñu bopp. ndax am nañ àll bi am nañ suuf si. am nañ ndox mi. ndax sëñ bi fàggul nañu ba na xam ne Touba. foo ci daw lu mat cent kilomètres murid yooyu ñoo fa ñoo ko moom. Euh, fàggul nañu ba nga xam tamit dëkk yi na xam ne yëpp moom lañ doon bayee di dunde jamonoy sëriñ bi ak bi fii sëñ Modou Moustapha nekkee sëñ Fallou sëñ Blaat dëkk yooyu ba léegi nii. Mhm. suñ borom da bi. Mhm, mhm. nga xam ne maanaam dëkk yooyu yëpp nag war nañ koo dundalaat. taxaw fa moo tax nag léegi loolu mooy jur emploi. emploi mooy nga fexe ba. créer ay opportunité yoo xam ni da ngay soxla ay nit yoo fay dugal. am na solo bu ko defee ñi nekk ndakaaru gi ni nii. Euh, nga xam ne ak ni mu ndakaaru ni mu méttee. fi mu toll nii nga xam fi duñ am sax cinquante yu dajaloo. ñun ñëpp ñu a ci tool ya. Euh, ñu def ay secteurs. Mhm. tey jii mën nañ ne tindoo mhm. euh, maanaam tey jii nii xoolal euh, deru deru nag yi nii nga xam ne dañ koy dañ koy jëfandikoo ci màggal gi. Mhm. deru nag yëpp nigériens yi léegi sax ñooy jugee Nigéria ñëw bu màggalee pare ñooy ñëw di ko jënd di ko yóbbu. jël deru yóbbu. tey jii di war nañoo mën ne ah tindoo di fépp lépp lu ñuy defar ci wàllu der fa lañ koy defara léegi. nga ne waa dëkk ba dañuy daal ñu jàngal leen wan leen nan la ñuy conserver nag euh, der yi. Mhm. nan lañ koy traité nan lañ koy defee. Mhm. ba nga xam ne ay usines yooyu dafay nekk. Mhm. ñu dem tubaab Bogo ñu ne ka fii kat moom nañ fi def légume. maanaam tas mbir yi daal ku nekk ku nekk jël li nga war a jël. fenn fu si nekk. ñu xool ko ak expertise murid ak timit ndax sëriñ bi lépp dafa am ci murid yi. bu dee agronomie murid yi ñoo ëpp ci réew mi. bu dee ci wàll boo jël rek. Mm-hmm. murid ñoo ci macha allah ba fan yi paase rek ki nga xam ne euh, maanaam ci wàllu transformation produit lu yi. Mm-hmm. Euh, bi nga xam ne état bi moo ko yor. Mm-hmm. ka ka fa nekk sax xaadim la tudd. ci moom jiite mbir mi di ab murid. ça veut kon expertise murid boobu moom la ñu war a jël boole ko tamit fexe ba mën a former parce que Touba tey boo xoolee euh, jigéen ñi li ñuy defar. ci ay euh, maanaam xeeti euh, transformation produits lu koy mm-hmm. euh, xoolal suñ café tubaab yi na xam ne léegi fi mu toll ñëpp ko bëgg. Mm-hmm. maanaam ñëpp dem nañ ba xam ne. daal moo gën a moo gën a. moo gën a jàppandi moo gën a jàppandi. Ah, waaw <laughs> eh. xam nga yooyu yëpp noonu. Mm-hmm. lu jëm ci wàllu wàllu wàllu wàllu céréales yi. nga xam ne céréales yi war nañ ko mën a jël li ci tubaab yi def yëpp ñu defal ko suñu bopp. dem dem dem yóbbu ko ITA. Mm-hmm. am suñu ay marque mm-hmm. ba na xam ne di ko mën a jëfandikoo. Mm-hmm. di ko mën a yu xam nga euh, force bi ñu am. ñun maanaam su ma déggee sa wax mooy opportunité yëpp mi ngi fi. opportunité mais kon lan may jafe-jafe bi nga xam ne moom moo samp suñu kanam ba tax mënuñoo jëriñoo opportunité yooyu. Ah, léegi opportunité yi moom sax damay daaneel foofu sax ci force de consommation boobu ñu doon wax. nga xam ne dafay weesu 3 millions yi dëkk biir Touba. budé magal na xamé ak 5 millions yi di ñëw di fa dolleeku 8 millions ne fa. Mhm. di wara consommer ci une semaine bo xamné dañuy consommer. Mhm. benen bi ci top moy diaspora murit bi. Mhm, bi nga xam ne. tey ëpp nañ 2 millions ba 3 millions ci àll bi. té ñom ñëpp dañuy naan café Touba. ñun ñëpp bu amon luy ñi defaree Touba. di ko indi loolu lañuy jënd. parce que man bi ma nekkee Espagne wala Italie. damay dem ci chinois bi fa lay jënd gejj. fa lay jënd yoxos fa lay jëndee. café Touba. Mhm. lépp fa laa koy jënd ci chinois bi. Mhm. nga xamal ne kër yëpp murid yëpp tamit noonu lañ koy defee. Mhm. kon force de consommation bi murid lañ ko am. kon léegi lan moo des mooy force de production bi ak transformation bi loolu nag li ko. li est-ce que loolu tey.